mbokk yi ñu ngi jëm ci le grand combat de la soirée ndeysaan combat bi ñu doon xaar un combat choc un combat examen 23 octobre 2022 arène nationale Gibson production ànd ak Abdoulaye Ndiaye ñoom Bamba Faye ñoom Sam ndeysaan arbitre sifflé na ñoom ñaar ñu ngi taxaw ku nekk ngi xoolante ñaa bu ndaw moo wan ginnaaw de à gauche mooy riij noonu armée bu ngewel jugee jam ñaajo moo jàkkaarloog ñun mel ni ku féete à droite ñoom ñaar ñu ngi ne tekk ku daan dem sa yoon mais combat bi combat bu gaaw la may nduru nag combat bu gaaw la may nduru nee nañu armée bu ngewel moo ëpp doole waaye boo xoolee ñaa ak taxawaay bi am na kàttan waaye combat bi fit la laaj ak concentration totale armée mooy dem armée mooy dem armée aj na garde bi droite la aj jiital garde gauche booy ñaa wala boog ñaa bu ndaw pied gauche sànni na benn gauche daf ka appel ci xeex def retrait ñëw na taxaw di ko xool ñoom ñaar ñëpp mobiliser nañ mais booy xool ñaa moo gën a mobiliser parce que ay supporters fii lañ dëkk moom moo recevoir kii jam ñaajo la jóge laaj nañ ko sànq si mobilisation bi waaye def na kéem kàttanam nee nañu dépassé na ay 1 million pour préparation combat moom armée ñaa méb na ñaa sànni na gauche ñaa sànni na gauche armée nee na tekk di ko déglu armée daf ko jox làmb ji armée dafa mel ni ki dafa jox ñaa bu ndaw làmb ji ñaa tee ko waaye na nga xam noo koy teewee sa tànk bi sexal nga ko ñaa wàcc na ba tolloog armée di garde day joor ndeyjoor bi la defee garde arbitre ruumal na leen leen bëri leen na gaaw round d'observation bi la ñu nekk bàyyi leen ñu bëre combat bi kenn du ko saax saaxee combat bi dafa laaj concentration xoolal armée li mu def sànni ci kaw sànni ci suuf ñaa moom moo def loolu bàyyi ko mu sànni si air bi si ngelaw gi di dóor ay ngelaw attention armée booy xool moo jiital tànkam mel ni kuy diriger combat ñaa fa mu taxaw lay taxaw ndeysaan waa écurie Waalo nee nañu teg waa jam ñaajo nee nañu teg ñaa ñeme na ko jël na tànk ba sirip xar na ko bañ na laay lay la laawoo tooj bib na ko daan na ko ñaa bu ndaw daan na armé laa ilaha illallah il décolle il se relance il a passé son examen avec réussite avec réussite ndeysaan dafa gëm boppam wane na ko tey ñaa bu ndaw daan na ko moo sant yàlla waaw ma see am cër nañ bàyyi boo ñuy tëmal ñu boole suñu biir moo dama am jaar-jaar si làmb. wàcce leen seen micro yi. dama am jaar si làmb. wàcce leen ñu gis moom man champion laa. ñu xam ne kii mooy wax. maa ngi sant Lac de Guiers 2 bu baax a baax a baax. Alioune Seye 2. Madji Madji. Ibou Ndiaye Diouf yor. Eh, damaa bëgg nga wax ci kër Suroon damaa bëgg nga wax ma ci bëree. kër Suroon maa ngi koy sant waaw dëgg la mais waxal ci bëree. nga gërëm waxal ci bëree li nga bëree wax si. dañ maa umbale. waaw mais yàlla baax dañ ma yàgg a umbale. dama laa gis nga bàyyi ko combat bi rek dem jël ko. billaay wax li ma mën bëreegu ah? ma ko. li ah. maa ngi ma ca pare la sama mën. Niang bu daan nga ki nga mujjee daan rëm. daan nga ci armée bu ngéwél. armée bu ngéwél champion la. waaw rëm tamit champion la. mbër la ngay ndaanaan kan moo ci des. foo jëm foo jëm. foo jëm ma ñu may kan comme kan. Jokal ñu bëre. Jokal.